ngi leen di nuyu di leen ziar fii ñu taxaw nag su ngeen ko gisee gis rouge ak blanc bi ngeen xam ne ñu ngi rëbës bu ñu rëbës nag xel yi day dem ci double moteur digganteem ak Feugeleu dimanche 7 arène nationale ak Assane Ndiaye Baol production am na ñu taxaw sama ginnaaw ay champion wala ay boog espoiru lamb ñetti mbër bu la neexee ci kan laay njëkk xaar ma jóge ci njool jamono njool bëgg naa la. waaw Mbaye Ba ñu ngi lay ziar. ci loone maa bu baax. lu ngeen xew la tey fii. waaw tey dañoo suñu doom day moo xew la xam nga mooy loolu waaw waaw moo tax ñu teew quoi. Forza bëgg naa la. waaw ñu lay fay El Hadj Babacar. Forza waaw mi bu Fass. yéen mel léegi Fass ngeen bokk. waaw non waa Fass ngeen bokk mais Fass moo ñu boole. xam moom doomu Fass la Fass njëkkoon nekk avant moo nekk rëbës bu bu ñu bu xewlee rek lu mu def rek ñun bu ñu xewlee defal nañu lu ko ëpp. mu ñëw daanu ñibbi. fëgg la daanu. ñibbi. nga ne fëgg la ñëw daanu ñibbi. waaw ma nga xale Korias bëgg naa la. El Hadj Babacar delloo ziar bu wér. yow gis naa la nga teew de. waaw mais c'est normal suñu frère moo xew la nga duuba suñu daanu ñibbi. Ah, baax baax ñun ay xale nekk ci yoon ñun tool fi may chance ay xale nekk ci yoon di liggéey képp ku ñu dajeel espoir ñu leen koy jox comment donc dañoo def mooy la mooy yàlla sural dafa ñu dem quoi am si yaakaar baax tamit quoi. kon ñu ci open press ak si ñu dem waa waaw doo may du ngeen a may benn njug ma xool kan moo dàq njug ci yéen ñett. xama xama si njug balaa moo neex suñu mbokk séeréer yi waaye. mais mais mais nii non sa war nga mën a xalaat nii ngeen yëngutu. non dama bëgg ngeen yëngutu nii. kii moom déggul moom. force waaw mais yow defal yaag yaag yaag yaag njool jamono def leen. njool lu ngeen di fecc dimanche. non dimanche. dimanche du yomb dimanche neex a neex. baa bañ dugg ci biir. baa ma may la ci lu neex. waaw man lu may may nañ dem rek taala ñu dem. na neex si sendel sendel ngi nii da koy taal bi da koy jegeñ te ko laal. lii mooy sendel jëmbe yaa ngi nii asiko yi waa xandaalu. waaj. yéen lu ngeen di waajal duubul. Ah? lu ngeen di waaj lu di waajal duubul. waaw ñu ngi waaj rek waaj bu ndaw rek Babacar. waaw ñu ngi waaj waaj bu ndaw rek waaw. gaynde yi rëb eh Ay, ay, ay. la taala tuubu la ngi noonu du ñëw daa mel ni day dugg si ndeysaan ànd ak ay gaay maa ngi seen ñoom Korias Talla xorom a ngi nii. lañ. mbokki fan. samay mbokku Dakar Plateau. ak waa waaw laa àndal. nga fas yéene dugg ci biir yëngu. waaw fas yéene dugg ci. waroon na jóge Fass ñëw fii Rëbës. waaw Dóobal suñu mbokk te Fass a nekkoon waaw mu ñëw dal si Rëbës dañ koy teewal bisam bi di ko ñaanal yàlla ndam bu yaatu si barke Sëñ Fallou waaw. delloo ziar Babacar avant tout ñu sant yàlla di julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu mbooloo mi fi teew yëpp di jégalu suñu dëggandoo bu baax baax a baax waaw di sant gars yi fi teew tamit sama mbokk mbër yi nga xamante ne ñoo fi teew ku ci mel ne ay Ada Fass ay Serigne Ndiaye ay Ndiakhum ay Boy Mo Séeréer ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm waaw di sant mbooloo mi fi teew yëpp nag waaw. tey ñu ngi mercredi fan yu néew des sa diggante fëgg la Double Moteur actuellement lan lay yëg nii fi mu toll nii ñu taxaw nii ci biir waa waaw saa ndam rek la ñuy yëg ndam kese la ñu yëg ndam kese la la ñuy yëg saa liggéey nañ ñu war a liggéey dara de lu suul rek ñu dem yàlla may ñu ndam incha allah. yàlla may la ndam incha allah nga wax ndam ci kan ak ci nan ci fëgg la nga wax. waaw ndam ci kaw fëgg waaw. ci naka fëgg la lan maanaam ndam ci moom est-ce yomb na pour yow. waaw ndam li moom. ndam li moom yàllaa ko yor rek te yàlla lañ koy ñaan ñun liggéey nañ li ñu war a liggéey def nañ lépp lu ñu war a def am nañu suñu bopp kon li ci des dara desul lu ñaan yàlla suñu borom rek may ñu ndam moo tax yàlla rek la ñaan ndam waaw ne na li ñi ma sa bëreeg fëgale ci ay xale mel ni yow da leen a freiné est-ce que duggoo ci ay risque non non ñun jëluñu risque ñun ay xale lañ ñun ay booy yu ndaw lañ biñ duggee si làmb yàggul di bay suñu waar di liggéey fëgale làmb moo ñu boole rek dëgg la moo ñu nag suñu grand la mais ñun dañoo liggéey ba war a bëri moom kon du risque ñun ay booy ndaw la ñun ñoo ñun ñoo soxla ñun ñooy uti waaw moom mënul nekk risque si ñun. combat bi muy préparé diggante ba Feugeula fan la ko combat bi mën a yóbbu bu baax est-ce que xam na ko. waaw combat bi xam nañ fi mu ñu mën a yóbbu bu baax a baax a baax. waaw parce que Feugeuleu champion la ndaanaan la bëri na fekk tàkkusaan bu nekk kon lamb yi ñun xam na fi mu ñu mën a yóbbu bu baax baax a baax moo tax pare nañ ci côté yëpp nag waaw. dama gis ne ñu mel ni ñoom Diakhoum ñoom Thiatou Rebeus. waaw ñoom Sall Bawol ñëpp dañoo bëree daan. mel na ne dañ laa sas. waaw loolu sas la ñu ciy sant yàlla rek. waaw di leen féliciter di leen féliciter à bu baax a baax a baax di leen ñaan yàlla ndam li jig ñu bu baax a baax parce que ndam li sunu la ñu fem ndam yëpp ndam yi sunu ndam la ñu ñaan yàlla ndam yi jig ñu te ndam yi gën a neex incha allah rabi. waaw Feugueleu ci làmb ji laa ko xam rek xaw ma ko bu weesoo làmb ci làmb ji laa ko xam di ko seetaan muy bëree loolu laa xam ci moom xaw ma ci moom leneen. am na lu mu wax parce que dama ko laaj mu ne du wax ak yow parce que du sa morom li ngeen seq mooy bés ba nga ñëw mu wan la ne moom du sa morom loolu loo ci wax ne du wax ak yow mu ci ay micro parce que sequ ngeen ko. waaw loolu amuñ dara duñ ciy wax dimanche yàggatul waa double waaw ngay bëru gox génn gox bépp topp sa ginnaaw est-ce que li du nekk pression ci yow non non si ñun ñun dañuy sant yàlla si lii rek di sant baax a baax a baax parce que amaana tey jii ñun ay doomu quartier bi lañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ xam ku xam ah, rëbës xam ay seen xandaal xam ne maanaam public du gan si ñun c'est la première fois yàgg nañ génn di jóobu ay public yàlla dañu suturaal ñu may ndam kon maanaam amuñu amu mënuñu teg benn pression lii waaw dëgg la lu tax nga bàyyi feebar jël ndoxu si bi ku ne xam ne yi nga jël fëgg la loolu est ce que amul pression ñun suñu objectif lenn la mooy dem ci kaw bokk ci mbëri bi man ñun suñu objectif loolu moo tax du duñu taamu ay ay mbër bi lii la mën wala dara ñun ñun fi ne carrière la ñuy def dañu ñaan yàlla tey jii nii dem ba tey roi des arènes bëreeg tey VIP yi ci kaw kon tey jii ne amul benn mbër boo xamante ne tey jii ne dinañ lamb dinañu boole ñu lay sóoraale ci dara non ngay ndaw dugg ci làmb ku ne xam ne tubaarkàlla mbooloo nekk sa ginnaaw na nga jëm arène nationale loolu lan ngay wax sa supporters yi waaw arène nationale si ñun parce que suñu combat bi mujj yaakaar naa fa lañ ko bëree te gis nañ liñ ko def te dafa tombé woon sax ñu jóge ci final loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ñun tàmm nañ génn man secteur bi ma déggee la ñun tàmm nañ génn dem di bëri ji fu wala ñuy génn dem di ñun tàmm nañ loolu noonu ñun tey jii nii même ba ci match yi fii nii bi ñu gën a seen diggante ak waa lamsaar yi caaro yi dama gis mu mel ni affaire bi yéen ak ñoom dafa mel ni daal tout temps yéenay bëri lu xew maanaam derby boobu nan nag lu andi problème boobu seen diggante. waaw problème amu ci waxoon naa ko dama koy waxaat ñun yàlla moo def secteur bi ñu nekkee tey jii nii làmb daf ñuy boole ak ñi nga xam te bi lañ nekk moo tax tey jii fu ñu dugg rek mën nañ fa dugaat parce tey secteur bii nii Dakar yaa ngi dégg parce que tey jii nii du ñu jógee ñu nii di bëri waa Medina wala ñuy bëri waa Fass wala ñuy bëri keneen kon ñun ak ñoom la moo tax baa la ñuy bëri moo tax du ñu bàyyi sax waaw. léegi fan fan ngay mujjee parce que fi mu nekk nii affaire yi. benn mooy sa deuxième euh, deuxième combat ci saison bi. Euh, morphologie bi changé woo ko état physique bi lan la da yokk masse bi tuuti wala da nga maintenir même muscle waaw ñun dañoo nekk suñu ay grand muy ku ci mel ni Cheikh Diaw Ibrahima Faye Balla Diop ak Talla ak Cheikh Bob ak gars yi ñu ngi entraîné combat bu ñu mën di jël adversaire bu ñu mën di jël rek ñoom ñoo ñuy ne lii liggéey lii la ñuy àndal ñun suñu entraînement dañ koy yokk mais duñ koy wàññi. da nga ñun xamuñu ñun gars yi ñooy rek ñun l'essentiel daal ñun chaque jour rek li ñu war ñun dañ ciy nekk muy entraînement muy waaw di liggéey rek ñi gàndaa yok yokk wala wàññi moom gars yi ñoo ko xam. yàgg fëgale ku dàq bëre. non fo. <laughs> waxal yéen ñaar ku dàq bëre. fëgale maa ko dàq bëre maa ko bu doole bokkuñ sama la Babacar lamb ji ngay gis loolu musul gis wër na alxuraanu karim parce moom dafa am lu mu amul dafa am lu mu yaakaar amul. lu mais na def très attention. am na yaakaar ah. lu mu yaakaar non bu ko teg moom xam na ko boo waxee leen la ñuy wax maa ko gis sax boo waxee dañ xeex bi avantage su foogale la loolu la ñuy wax mais ñu nangu xeex bi ci moom. waaw foofu laa la foofu laa la a laaj Double Feugeleu dañu gis ni mbër la moo xamante dafa gaaw te yow combat yi ngay bëri yëpp en général da ngay jël sa temps est-ce que combat bi yaa ngi ciy préparé gaawaay waaw mooy li rek tey jii dañoo nekk ak ay ay professionnel ñun ñu ñu nekkal ay professionnel lañu combat bu ñu jël adversaire bu ñu am xam nañ nuñ koy waajee bu baax a baax a baax a baax parce que adversaire ñun yàlla dafa def maanaam ñi grand yi nga xam te ne ñoom la ñu yàlla booleel adversaire bu ñu am rek. ñoom dañ koy cadré dañ koy cadré di ko suivre xam ko bu baax a baax xam ay qualité am xam ay quantité am di liggéey ak ñun si loolu noonu moo tax côté yooyu yëpp ñun pare nañ ko instant yi leen moo des di xaar jour yu jot yàlla mooy ñu dem ci kawam amul leneen. looy looy tàggoo ñu lay suivre ci que fi mu nekk nii ñu war a ñëw dimanche à l'arène nationale. waaw li ñuy tàggatoo du lenn lu dul di jégalu rek mooy ni ma ko waxoon sànq. bël bu rafet mu ne ndax da ngay door la ñu wax moom bu dëgalee boppam gars yi dañ ne mënoo xeex de la gars yi ko wax de. waaw mënoo xeex te fëgg la tur na ay mbër yu daanu. waaw loolu dañ ciy sant yàlla rek parce que boo xoolee waaw ñun mënaguñu dara ay ndaw lañ dañuy jàng rek ay ndaw lañ dañuy jàng rek man sama supporter yaa xam ne wuñ dara man yàlla maa dimbali supporter yi ma yàlla séddee lenn lañuy laaj mooy victoire soo demee arbitre yëfee sa loxo ñun ñu bi sax bëgg nañ ñun ndam rek lañ ma laaj kanta ay xeex yooyu noonu nag amul sens nañ ma door ba ma dee ma ni ndam looy waaw ma may tàggoo mooy li jégalu waat dëggandoo yi rek parce que tey jii ñii amuñu seen fay parce que tey jii li yombul xam surtout waa jàkka yi nga xamante ne tey jii nii ni sunu imam Baba Thiass ñu ngi sunu imam la sunu sëriñ la sunu xarit la daf ñuy ñaanal du ñu may xaalis kooku dañ koy sant bu baax ko gërëm di ko jégalu tamit di jégalu di jégalu tamit ñi nga xamante ne tey jii ñoo bàyyi seen yite yëpp ñëw fii nii xam di woo gars ci combat bi nag arène nationale ku nga xam ne ni yombul xam kon dañ ciy woo ñi nga xamante ne tey mooy autorité yi nekk biir Dakar plateau fii nii nii ku ci mel ni papa Diop si ñu woo bu baax a a baax pour mu ñëw jàpp a xam mbay Elimane Gueye taaliba Serigne Saliou ñu ngi koy woo ci combat bu baax a baax a baax Mortala Gueye taaliba Serigne Saliou kooku kenn la suñu ñun mention spéciale Mortala taaliba Serigne Saliou dañ koy sant bu baax a baa a baax di ko gërëm ndax ku Diop dollar maa ngi koy bu baa di sant waa Paka bu baax baax di woo suñu maire bi ci combat bi Alioune Ndoye mu jàpp si combat bi baax a baax soxla nañ dimbalam trop na ñëw si combat bi kaay bi yooyu masse pièce détachée aw ma fayam masse kooku kenn la si man dama koy wax chaque jour fi mu méttee la ñëwee moo tax dama koy sant bu baax a baax di ko bàyyi suñu borom rek lépp lu mu mën yàlla fulal ko ko ci barke Serigne Touba Mbacké muy masse di sant tamit grand yi baax la bu ñamee bu baax a baax kontaan yi xam gars yi nga xamante ne ñoo si jàpp mooy mafia bi mooy booy supporters yi booy yi nga xamante ne boo may combat ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy fanaan sama buntu gaale mooy ñoom Jean ñoom Thiep ay booy mooy waa mafia la woon a basira bi booy waa deux heures yi xam nga international yi gars yi